ci yoon euh, moom Pape Alé mu nekk loo xam ne nag lu lu metti la ci corporation bi nga xam ni ci la bokk rawatina ci ñun ñi nga xam ne dafa nekk suñu génération euh, te jàpp naa ni itam euh, gënul ci li nga xam ni mooy démocratie ndax ku ne xam ne ni président de la république wax na fu bari ne fii ci réew mi duñu fi jàpp taskatu xibaar te loolu itam def na ci ay jéego kon yaakaar naa ni rafetul ñu dem ba nga xam ne li des ci mandaam bareetul ñuy jël actes yu mel nii di ko teg ci taskatu xibaar mais rawatina ci ki ñu ko teg parce que ki ñu ko teg aussi dañ ko xam bokk ak moom génération xam pas-pasam xam yéeneem aussi ci Sénégal euh, dëgg la am na ay position mais position yi xëy na digitalisation bi ak numérique bi moo ko yokk mais ku xam Pape Alé di nga xam ni euh, en 2012 taxawaay bu mel nii la amoon te loolu itam président Macky Sall euh, mën na ko seede ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak moom mën na ko seede kon tey bu ñu egsee ba tey nii mu position yu mel nii ñoom ñu am nu ñu ko gisee loolu itam dafay xaw a ak li nga xam ni mooy démocratie loolu nag du ñu def lu dul ñaan ki nga xam ni mooy président de la république wax ak moom itam mu xam ni ah fi mu teg loxoom ak fi mu teg tànkam war na ko mën a teggi parce que nekkul loo xam ni dafay taaral république nekkul loo xam ni dafay taaral démocratie rawatina ndaw boo xam ni taxawaayam ñëpp xam nañ ko moom Pape Alé man témoignage bi may def ci moom euh, du sax ci liggéeyam mais dañu ànd màkk waaw vraiment dañu ànd màkk ñu nekk fa ci ay moment yoo xam ne ma gis taxawaayam gis bëgg-bëggam ci ci ci diine euh, Pape Alé tout le temps mi ngi ci kaaba gi mu ngi ci xabru yonent bi alors nekk koo xam ni man loolu laa mën a wax ci seede loo xam ni teg naa ci sama bët euh, kon bu fekkente ni lii dal na ci moom metti na nag waaw du ñu wax ni fi mu nekk du cëram parce que kaso jomb ko man mii jomb ma ña fa nekk itam euh, moom gënu leen man gënuma leen waaye wax fa dëgg yàlla fa mu nekk fii ci biti moom moo gën a nekk place am que fi mu nekk euh, donc loolu mënuñu ko woon bañ a wax euh, di sàkku ci rek ci ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi ñu delloo si seen xel te xam ne ak lu mën a xew am na loo xam ne waruñu fa mën a egg rawatina ci jamono jii nga xam ne dañu fi toll euh, ñëpp war a ubbeeku ñëpp war a yaatal bu fekkente ni dafa may doxalin yoo xam ne mën na safaanoo mën na indi leneen ci ci dëkk bi loolu mënuñu ko woon amuñu ci nag lu ñu gënal parce que bu ñu sañoon wax dëgg yàlla tey du fanaan kaso waaye nag amuñu ci amuñu ci benn pexe lu dul wax rek lañ ci mën moom xam na ko moom bu baax président Macky Sall xamante nag Pape man xam naa ni moom la gën a xam que Pape Alé man muy moom muy soxnaam muy keneen ak keneen waaw ah, kon am na fu ñu jaar loolu rek waroon na tax ñu bàyyi xel ci ci ci lu bari bari bari maa ngi si jégalu nag mbokk yi mais loolu mënul woon ñàkk ñu ñu wax ko parce que mënuñu am confrère boo xam ni man ak moom dafa bari lu ñu seq am na sax ñoo xam ne ay jumeaux lañ koy wax léeg-léeg liñ may woowee Pape Alé bari na liñ koy wax Pape Ngagne bari na kon lu mel ni bu amee du ñu def lu dul rek euh, sàkku ci kilifa yi lépp loo xam ne mën nañ ko ci def ci lu koy oyofal. ñu def ko may mun a maa ngi jéggulu euh, yaakaar naa ne actualité boobu ñàkkul nga am ci euh, loo ci mën a sànni